fidèle internet bpactu.com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fu seeni ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak saa su nekk ba tax na nag tey jii li gën a mooy li xew ci diwaanu hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack foofee nag ak benn bébé bu ñu duppee woon bébé Diary Diallo moom moo fa ñàkk bakkanam ci ci anam yu alarmant ba tax na nag kii nii di waajuram bu góor dafa daal di dépêché rek ngir ko takk dari dugal ci seen loxo mbir mi na mu demee ca cappaandoo ga ba suñu joon yàlla yi tey jii lañ leen indil ba tax na woy juróom bu góor daal dinay expliquer lépp moom bébé jaari jàllo mi ngi juddoo ah, ci benn poste de santé bu nekk ca diwaanu ah, Kaolack ñu koy duppee ah, war jaxal foofee nag ba mu juddoo ba noppi ñu gis ni bébé bi dafa am ay problème respiratoire ba tax na mënuñu ko continuer di ko toppatoo ci lañ ko daal di évacuer ci hôpital régional bu El Hadji Ibrahima Niass bu nekk ca diwaanu Kaolack Kaolack foofee nag ba mu yegsee daal dinay def ab crise ci saa suñu daal di koy réanimer entré ko fa continuer di ko euh, suivre euh, teguñu ci waat euh, ay waxtu yu néew rek bébé ba daal di defaat beneen crise cette fois ci benn aide infirmier moom moo ci yam daal di déclaré bébé bi ni génn na àdduna rédiger ko certificat de ba jébbal ko woy juróom bu góor moom nag na mu dikkee du récupérer bébé ba fekk na aide infirmier ba daal di koy dugal ci benn karton bu madaar tëj ko fa ngir que ay woy juróom jël ko rek jébbal ko seeni borom ba mu ko téye ci ay loxoom nag ay euh, waxtu ay quelques secondes rek gone ga ci la tàmbali sëkkat jékki-jékki yuuxu di jooy mu nekk que ni kii nii dee d'infirmier bi doo ko déclaré woon mort alors que gone ga mooy continuer woon di dund alors ko lu toll ci deux heures de temps lañ ko tëj ci boobee carton la ca topp nag moom moo gën a tax way juróom bu góor boobee am na kar ba daal di ñëw ci loxol takk der yi ndax nee ci saa si dafa doon du baaraamu tuuma aide infirmier bi di wax ak moom waaye ci ñoom dem euh, kalaame ku la neex faale wuñ la loolu moom moo tax tey jii mu daal di ñëw ci média yi ak takk der yi ñu daal di cay def seen liggéey ndax gis na euh, li xewoon ci diwaanu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu a euh, yoon da ca daal di def liggéeyam na mu gën a gaawee directeur hôpital ba nag daal di nay def sortie ngir seetal daram waaye seetal deru hôpital ba ba mu mat sëkk ndax nee na bés boobee pédiatre bi moom fi woon ba mu paree ci bébé bi dafa daal di demaat ci beneen salle ngir defal beneen bébé ay soin waroon nañ koo mën a woo ngir mu ñëw saytu bébé bi ba xam mi ngi dund am déet ak beneen médecin moom fa woon tamit médecin yi fa nekkoon de garde bari na ñëwul tamit ci directeur bi wax ak moom wala lenn waaye aide infirmier bi dafa jël li nga xamante ni moom moo di ay responsabilité boppam ba tey ji mu daal di dugal boppam ci ay cooxi doon ni yoon nag na def li nga xamante ni moom moo ci nekk liggéeyam waaye ñoom daal di nañ ciy raxasu ba set wecc tey jii ku ci nekk ak sa liggéey moom aide infirmière bi spécialisé wul pour suivre ay xale donc am lu woon droit benn yoon la di rédiger certificat de décès alors que ñu ko war a def ñoo ngi ci hôpital bi waajur bu góor ci gone gi nag moom nee na du teggi tànkam benn yoon tànk justice deful liggéeyam ndax tey jii mënoon na koo jàppee erreur rek que ni dafa xamul woon ndax loolu mën na dal ku ne tey jii am na sax ay mag yu du àdduna ba ñu suul leen alors que ba ñuy dem ñoom faatuwuñu woon dañ leen koo déclaré ndax problème respiratoire ak keneen ak yeneen yu ni mel loolu yàgg nañ koo gis ci àdduna ko yuuxoo ba naan ko demoon fu la neex mbir mi du mujj fenn tey nag mbir mi yegg na ci loxol yoon taskati xibaar yi ñëpp jot nañ ci aide infirmière ba ñu daal koy fekk sur te justice du teggi tànkam benn yoon comme li xewoon tamit ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga nit ñi dañ ko daal di comparé jàpp nañu daal tant que jëluñu ay mesures yoo xamante ni takkar naa seen lool di ko jëmale ñenn ci médecins yi aide infirmière yeeg sage-femme ñu bàyyi benn yoon ni ñuy traité seeni patients ci hôpital bi waaye tamit manque de concentration bi ñu am ci wàllum paj mi saa su nekk dina gën a garaaw amoon na démb am na tey te boo moytuwul lekk ëllëg dina amaat ci keneen donc jot na euh, suñu njiitum réew président Macky Sall ak Abdoulaye Diouf Sarr mu ñu dénk wàllum euh, santé bi ñu xool naka la ñuy def ba xeetu ñaawteef yooyee jóge ci hôpitaux yi ndax nit amul lu dul bakkanam euh, bu demee hôpital dañ ko war a teewlu nañuy teewloo ku feebar waaye tamit gunge ko ci ay parole lu baax ak yeneen ak yeneen yu ne ni dama juum ngir ñu daal di koy uh, jéggalu kon tey uh, coow li du yegg si fii comme ni ko way jur bu góor ci xale bi waxee ak uh, lu ci mënti am dinañ ci dellu si waat yéen mbokk yi ñu suivre sur la BP Actu fii lañ ko indiwaat ba beneen yoon incha allah.